alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bañ sante yàlla ba noppi julli ci sangub sangi seydina muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa sallam sant suñu yaakaar tey ëllëg di cheikh ahmadou bamba xaadim rasul bokk juuti bokk taalibe yi ñu ngi ziyaaraat ñëpp di ndokkelaat ñëpp ci weer bu tedd bi ñu nekk mu shawar ramadan mubarak di am nag tuuti xol boo xam ne xol bu xaw a kii ndax weer bi moom buy tàggatoo dañuy xaw tuuti ñàkk békk na bu ñu sañoon weer bi du jeex ndax day weeru ngëneel di weeru tawféex di weeru fóot bàkkaar ñu tàmbali woon ko ci bismillahi rahmaani rahim ba di ko waaj a jeexal ci alhamdulilahi rabil alamin ci fan yu néew di ci santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax di wax yàlla ñu may rek ñu fekkee ko yeggali ko ba fekkee korite gi wari ci jàmm ak mboolem jullit nekk ci àdduna bi yépp yàlla nangu na suñu koor ñu fekk ko ay déwéni déwén yu bari bari bari bari noonu la ñuy jiitalee suñu nuyoo saa su ne muy suñu kilifa yi xam ñoo fi nekk tey ci réew mi mooy ni ma ko waxee sama biir wax chaque jour bu ñu amee jàmm am assurance am tawféex ñoom dañ cee liggéeyee lu rëy rëy rëy ginnaaw bu ñu yàlla ba noppi gëm yonent bi salaay salaam ñoom ñu omat ñu gindi ñu wan ñu leeru yàlla ak leeru Muhammadu Rasulullah mooy kilifa yi nga xam ne tey ñoom la ñuy tuddee guide religieux yi jiital ci mu Muntaxal Bachir ma ca Touba di ko ñaan mu yàgg fi lool balay sa te yàgg te wér ak koor gi ku ne gis na taxawaayam ci koor gi ak waa isbu tarixiya ci kër gu mag fële résidence chaque ngoon mu ànd ak ñoom barkeelu ci xasaydu Serigne Touba yi balaay sa ñu la ñaanal mbàkk nga yàgg lool te ànd ak wér. noonu la tamit sëñ Bay Semence foo ci teewaan tamit ci liggéey bu mag bi nga xam ne sumb nañ ko muy jumaa ji nga xam ne daanaka ñoo ngi ci finition di ko ñaanal si Malick mu yàgg lool tamit fekkee inauguration bi ba ñu jox caabi teg ko ci loxoom. noonu la ñu demee ba Kaolack tamit nuyu ki nga xam ne mooy Cheikh Mahi Niass di jàmbaar dama ne moom kooku jàmbaar la missionnaire laa ko tuddee ndax day romb bay dem Afrique yeneen dëkk yoo xam ne jàmm amu fa muy fexe jàmm di fa am kon ñu mel noonu dañ war a ñaanal mu yàgg fi lool te dem Yoff Laayeen fekk fa Serigne Mouhamadou Matar Laay di xalifa Laayeen yi nga xam ne moom ku nekk xam ne gis na tamit jàmbaaram ak taxawaayam Laay mataar ñu koy ñaanal mu yàgg lool te ànd ak wér noonu la ñuy ziare mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak kilifa aada yi di wax ne ñëwaat nañu ak yéen seen émission bi nga xam ne mooy xam sa soppe te kenn ku ne kuy dem am na ku la sopp rawatina nag boo nekkee ci benn mbir di ko def foo jaar am ñoo xam ñoo ngi lay suivre ñoo ngi bëgg la lool. moo tax seen seen bi nga muy SSP bëgg-bëggu sénégalais rek ko tax a moo tax mu créé émission bi nga xam ne xam sa soppe la ànd ak yéen ci durant koor gi ma doon gunge ba xam ne daanaka ñoo ngi ci ndorteel njortal bi nga xam ne koor gi nga waaj jeex. ñu wax na nag am nañu yaakaar bu koor gi jeexee ñu ànd ko ko yéen mu leen gunge ndax nabiyen yi dañoo nekk ñoo xam ne demand yu ñu am sax ñëpp mënuñu recevoir ndax un mois dafa gàtt te ñëpp ku bari bëgg na tàbbi ci émission bi wante dafa fekk ne dafa gàtt moo tax ñuy ñaan ki nga xam ne mooy kilifa gi njaga wax nañu moom ba mu ñu bu koor jàll incha allah dañ ko continuer woy ko ndax ñii ay ñu am cër lañ ci réew muy nabiyen yi saa ne rek may dugg fenn indi koo xam ne ndaanaan la mooy ni ko waxee saa ne man xooluma ku ku am tur xooluma ko ñu xamul am na ñoo xam ne daanaka ay ndaanaan lañu te dañ leen xàmmeewul ci écran te la ñuy def ci mbedd mi ak ci tant yeeg ci bâche yeeg ci lépp ku leen xool xam ne ñi ay ndaanaan lañu tey nag ma jël koo xam ne muy Jëylaani Mbay xam naa ci kanam tuuti ku ne dina xam kan mooy Jëylaani ci talent ak ci jàmbaaram ak ci li muy def nu mu ko maîtriser nu mu ko mënee Jëylaani ma lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax ne masa coono gis koor gi ni muy demee ak seen programme yi guddi gi pour ngeen dallu day metti boo leen xëy tam émission heure bi ñu woo leen ci dama la ciy masaw coono bu baax di fa jaar di la nuyu di la la nga nuyu ñu lay seetaan hamdan li rabbi xaafiri zanbi li taw bina li حمدا لرب غافر ذنب الأنعام قابل توبنا للطفه بنا ثم صلاتنا مع السلام المستديم على الوسيلة سفيعنا الكريم محمد والآل وصحبه ما غفر ذنب الذي ناب هذا وإني يوم خد ندمت من كل ما جنيت مسقفلت إذا هاجل الفتان ونفسي والخلق أثيرا جاني فقلت تائبا بلا تواني مبتقيا غفران ذي الغفران يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل توبنا بجاه kulla xalqin ahmada alayhi salis masallim sarmadan waxfir lima taqattu bil janaani waxfir lima nataqtu bil lisaani waxfir lima lamastu bil yadayni waxfir lima masaytu bil rijlayni واغفر لما نصرت بالعينين واغفر لما طمعت بالحسنين واغفر لما أخذت بالبطن وما بفرجها خاصيت يا رب السماء واغفر لما خدمت بفضلك واغفر لما أقرت بمنك واغفر بجودك لما أسررت واغفر بلطفك لما أعلمت واغفر لما علمت يا ذا الكرم من الجناية وما لم أعلم واغفر لما علمت مني وحدك بأمن خوف قتائب بأفك وخاتني قصدة في الدنيا وفي غدير is xafdaka daifa bi dux bi it lam tazal latifa waxfir lahu waxfir li walidihi waxfir li kulli min min ilayhi waxfir li sayxihi wa sayxi sayxihi wa sayxi saaxa sayxi summa sayxi wali jamii almuslimi natura walmuslimati li alluma jarra wasalliyan مع السلام حد كفى على شفيع شفعاء المصطفى والآل والأصحاب أقلل أبي من لدائب خبولا توبي والآل والأصحاب أقلل أبي من لدائب خبولا توبي jërëjëfati Serigne Touba. jërëjëfati Serigne Touba. jërëjëfati Borom Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. Seydina Omar gannaaw buñ la fayee. Mhm. ah di baal ñëpp ak di leen baalu di baal Sénégal gépp ak mhm. rawatina adduna. di amaan mbégte bu baax ci ah, plateau bi nga nu dalal. Mhm. di wax ni xasida boobu ma duggusee ah, xasida njéggal la. muy taw tawbatu nasoo. di wax ni Serigne tubaa dafa ni fuñ ko jàngee wala kuñ ko jàngal wala ñi koy déglu ñu koy jàng suñu borom bu bu fekkee seen yéene rafet na. parce que intention mooy mooy compter. Mm-hmm. li nga yéene. Mm-hmm. dañoo yéene ñëpp am jàmm. Mm-hmm. yéene ñëpp jeexal koor gi ci jàmm. moo tax ñu dugg si xasida boobu. bëgg suñu borom fóot bàkkaar yëpp ci barke Serigne Touba. maa ngi lay ziar di la ndokkeel. di di di di bëggewaat bu baax képp koo xam ne rek soppeeb Jeylaani nga. wala nga koy suivre. maa ngi lay bëggee bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Jeylaani macha allah ci tawbat nax suux bi nga ubbee kon na nga ko waxee macha allah ci yéene wax Serigne Touba lim na ba lim Mm-hmm. lépp la lim yàlla jéggal leen lépp lu ñu mës a def tàmbale ci karaw yi ba ci wee yi jéggal leen seen i bàkkaar te suñu tubaab li mu wax moo ci nekk nee na boo ko jàngee boo amoon bàkkaar bi tam diggante asamaan ak suuf jéggal nañ ko mm-hmm. kon yàlla nañu boole yiw googu jéggal ñu ñëpp ci dara jeey weeru koor gi ñu nekk amiin barke si jërëjëf jëlaani ñu si ziaral nag ñi nga xam ne waxtu bi ku xam ne ne buñu ne koor gi ay fan des ñu jëm fële ca mm-hmm. suñu mbokki xaadir yi nga xam ne ñoo ngi dem war a jëm ca Nimzat war fa dem korité fa waa kër seen sa sat bi yëpp ñu leen ciy ziar ma ci nuyu ki nga xam ne muy Cheikh Aline Gaynde Ngouraan moom wax dëgg waxtu bu jotee amatul benn sago léppam lu mu am dajale na ko takk ko yóbbu ko fas yéene yóbbu limsat seen seen naarin lay ziar bu baax a baax Gaynde Ngouraan photographe mag bi ak soxna Rama mi nga xam ne tamit taaliba seen saat bu la nekk foofu ci Mbàkke wax dëgg yàlla ñu koy wax Ramsès bëgg loolu seen saat bu maa koy ziar moom tamit di ko ndokkeel ci bés bi di wax ne suñu xel yee ngi fa ba la fa demee limsat jërëjëf Jëlaani Jëlaani bi dégg nga sa soppe ndeysaan te ngay ndaanaan lool macha allah li ngay def nga mën ko lool bari ay soppe lool tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yow ci liggéey bi ci ndorteel bi ba ci tey fi nga yegg si ak taxawaay bi nga ci am ak li nga xam moom ngay def tey ci wàllu zikur laa tudd yàlla tey ma bëgg xam jënaale da nga ko fekk sa biir famille ñu koy def nga dondu leen ci wala dafa am koo roy ba doon tey nabiyeen ñu tuddee na nabiyeen tubaarakallaahu macha allah Seydina damay kontaan bu baax ci euh, question bi nga ma posé. Mhm. di wax euh, Euh, yàlla def na ni tamit lii nga def ni euh, lu war la ci ñëpp koo xamante ni day yëngu ci yonent bi mhm. war nañ ko woo wax ko foo bokk mhm. foo jaar ba mën li ngay mën mhm. parce que tëbul tëb rek ñu def ko ci yow parce que yonent yàlla Muhammad sax alxuraan bi muy wàcc ci moom yonent euh, Seydina Jibril la ko wàcce ci moom di wax ni mu daj ci ay coono yu bëri pour mu pour pour mu mën koo maîtriser ah di wax ni ñun i tamit lii nga xam ne ñu ngi koy wax dañ ciy daj ay coono yu bëri pour di ko mën a def wala ñu koy joyal pour mbokki taalibe di ko dégg euh, dañuy profité waat bu baax nag di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi di ñaanal bu baax euh, euh, Serigne Bassirou Anta Niang noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Mboodu Mbende Fall xalif général des baay Fall di ko ñaanal xalif généraux yëpp di ñaan ñëpp am jàmm di wax ni loolu nga wax noonu dafa am solo di wax ni boo déggee ñun biir diwaanu silkul jawaahiri leen bokk mm-hmm. mouvement mondial pour l'unité de Dieu. Mhm. Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni mhm. woote appel boobu noonu. Mhm. ñun nag yàlla def na ni ay ay goney Ndakaaru lañ li ñu naan boy town. lépp loo xamante ni goney Ndakaaru def na ko def nañ ko. def nañ lépp. waaye yàlla def na ni jëmm jooju bi mu teewee. Ah, woote li mu woote muy diwaan. nga xamante ni ah, ndaw ñëpp da leen rassemblé. di leen xamal kan mooy yàlla. kan mooy yonent bi. kan mooy Serigne Touba. te Serigne Touba taxawaayam yëpp. xas xasaay bi nga jàngale dogguma la sax Cheikh Amadou Kara moo ko moo ko moo tax ñu xam ko. loolu foofu laa doon bëgg a ñëw di wax ni mm-hmm. euh, tawbatu nation bi ma jàng. Mm-hmm. ñun suñu identité la. Mm-hmm. daanaka ku nekk diwaanu silkul jawaahiri xasaayit booy njëkk mokkal. ah day day doon tawbatu nation. ndax moom daf ñuy nàmpatal ci ñoom. am na am na stratégie boo xamante ni dañu ciy jàngal. ñuy maîtriser xasaayit yi. Ah, di ko wax. si comme ñun dañ dañoo dañoo uufoon ci àll di ñu ñu koy jàngaloo. di wax ni noo ngi koy ñaanal bu baax Amirou Sultan suñu borom yàggal ko fi di ko ñaanal rakkam ja maam Cerno Birahim Faati borom daaru borom Sikori góor ga ca pinc boppam ka daaru ñu koy siyaare di di ziar mbokki taalibe yëpp di ziar na képp koo xamante ni nag yaa ngi bokk ci mouvement mondial pour l'unité de Dieu mouvement pour l'unité de bu bu bu Inta 5 cellule Inta 5 maa ngi leen di ziar di di ziar waa zone 8 jëwrin yëpp rek bu ma bu ma limee jëwriñ Bamba ñi ngi mhm. jëwriñ Moduka mhm. jëwriñ euh, euh, Ndonga Jaw mhm. ñoom ñëpp rek maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay surtout jëwriñ Souleymane bu bu Jeysun ak ñëpp alu Bambakara bu borom daaru maa ngi koy ziaré bu baax di wax ni ci diwaan bi lañu doore di wax ni yàlla def na leen ñu ñu doon ay tout tànk juddoo Ndakaaru màggee fi juddoo ñaari tali gi waaye yoroon ak parcelle bi ñu parcelle euh, yàlla def na ni kuñ naan Baye Gora tey taalibi Seydina Ousmane Mbacke la mhm. da doon mooy papa yi nóoré ni bi ak soxna maam Mariam mhm. yàlla def na ni dañ ko doon gis ci ay aliram ñun dañ doon fubal ak di topp baal yeeg yooyu mhm. waaye yàlla def na ni ñun sax bokkuñu woon foofu xëy na ñu ko doon def waaye du foofu lañu ñu waroon bokk ndax Serigne Touba ah, ki mu nar ki ko nar a moom mooy dem récupérer ji la na la kaay yow da bokk ci ji may dañ koy sant mu baax di ko jërëjëfaatal di wax jërëjëfi Serigne Touba bàyyi góore bi mu ñëwee euh, papa yi di ñëw foofu daan yéen day taxawaalu rek ngeen di def ak kii xanaa mënu leen former daayira dinaa leen yóbbu ci Cheikh Modou Kara jàpp bis yóbbu ñu ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooré ni euh, loolu xam naa ay 96 la ak yooyu boori 96 ak 97 yooyu noonu bi ñu yóbboo seriñ bi daan ne ah comme ay ndaw ngeen kay da ngeen di dem ngeen taxawal foofu kii ngeen taxawal diwaan mhm. sax guddi ajjuma ngeen génn taxaw mhm. tudd yàlla ba seen dënn tàng mhm. waaw ku ci ne dellu def la mu doon def te ngeen jàpp ko nag fasoo ko mhm. dénk ko ñu 313 ixlaas par ajjuma ngeen daleen ko daleen ko wérdi waaw te ngeen saxoo di sant Sëriñ Tuubaa rek loolu bi gannaaw loolu ci loolu repéré nañu waaye ñu bokk ci ci côté meen ñu bokk ci Alaaji Ablaye Ñang ab Ablaye euh, kon da ngi bokk ci côté sa sa maam la maam la ci yow quoi Alaaji Ablaye Ñang jàngkat Euh, di sama maam. ndax euh, Aly Niang moo jur sama baay. moo jur sama sama sama ya sama sama yaay. Aly Niang ak ablaay Niang. ak Magay Niang. ak papa yi euh, ak papa yi Ndongolo. Mbañi Niang ñoo ñoo bokk seen bokk. kon loolu moom mën naa ne géwél gi la rek moom waaw waaw waaw ci côté meen ci côté direct foofu laay waxee mais ci côté bi nga xam ne falaa tarbiyo ci kër si Amadou Kara Mbacké Noreyni la mhm. waaye ci côté way ci côté direct foofu laa bokk ci mhm. alaaj lay Niang mhm. di wax ni euh, aussi benn côté ma may ziar bu baax sama yaay Ndey Faatu ak waa Ndar yëpp maa ngi leen di ziar di ziar sama yaay boobu ajar soxna Niang ah, di wax ni yàlla na ko fi yàlla yàggal ndax lépp moom la di wax nii tamit euh, yàlla def na ni parce que tamit nit bu la defaree dara danga koy sant di wax ni ñun mënoon nañoo bàyyi noonu rek parce que jamono moo metti jamono neexatul ba tax na euh, sëriñ bu la recadreel sa doom yaa ngi dégg fexe ba saa ne muy bàyyi xel ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah mm-hmm. ah kooku doo am fayam dëgg la ndax dalaa dalaa dimbali dëgg dalaa dimbali mm-hmm. ah, dalaa dimbali ci lu bari di wax ne dañ koy santaat bu baax di wax ni ci loolu lañ doore Seydina Omar mm-hmm. diwaan lañu ñu doore ah, di nab na bi di dégg gars yi booba booba booba booba yii nii xew sax bariwul Seydina mooy mooy li mooy yow diwaan moo la tàggan ndax si daara ji nga doore wàllu meen Euh, Ablaye Niang moo mm-hmm. ci wàllu deret kon way yi moom mun naa ne way yi doo am na loo xam ne da ko judduwaale ci deret waa kay waan ci diwaan moo tax tey nga doon sikarkat waaw diwaan moo tax ma doon sikarkat nga loolu ba année la ma si at ban at la ban année nga commencé yëngu ci diwaan ba yëg na tey nekk nga sikarkat yàlla def na ni xam nga ñun boo parcelle dafa dafa nekkoon euh, euh, zone boo xam dafa bëri woon suuf mm-hmm. ba pare dañu amoon espace géej mm-hmm. xam nga léegi la yàqu rek dañ daan dem di football yi géej bëgg football ba taxoon na sax di dugg ci football bi daal bëggoon nañ ko waaye def na ne bi diwaan ñëwee mhm. yaay rek ëlbati nañu ndax euh, amoon na ay mbokki taalibe magum taalibe fi nekk ci mel ni Rijal Fall mhm. ñoom Maxature mhm. xam nga ñoom ñoo fi nekkoon ay temps daanaka ay année quatre-vingt-seize lay doon ñoom ñoo fi nekkoon yàlla def na ni seen dañ daan ñëw Dakar par exemple di dem Sikóor yi léegi bu ñu daan ñëw Dakar nag bu ñu taxawee di ñuy jàppale ak ay mbokki taalibe yi nekk gi Géejawaay di di di di di di sikar ñuy dégg ñuy ñu daan dégg air yi ñuy sikar mm-hmm. léegi ñun daan daan dañ daan dem taxaw ci ñoom mm-hmm. buñu demee ba nekk nekkatuñ fi nag ñun dañ daan jéngu di madda mm-hmm. daan jéngu di madda ba ba ba fa la jógee daal ñu nekk ci yëngu yi léegi boobu fekk na ay mooy kon cant gi amoon balaa ñoom mag ñi di sikar yéenay dem ndaw ñi madda téye micro bi ba ñoom bu ñu ñëwee nga leen jox micro bi léegi ci at yooyu noonu xam nga daara ji moom moo la moo tax moo tàggat la nga doon mm-hmm. daara ji mooy la nga wax daara ji nga doonee tey jéelaani boo xam ne yëg ne si karkan nga war a mm-hmm. lii def nga ko sa liggéey commencé dem ci cant gi ñu lay woo ci cant tel cant ne nga fay dem loolu ban at nga ko commencé liggéey ndax yàgg na da du ma a mën a wax exact mm-hmm. euh, du ma la mën a wax exact waaye bi nga demee ba xam ne daal man mi bëri comme li nga wax xam sa soppe bëri naa ñoo xam ne sopp nañ ma ci lii may def bi ma demee ba maîtrise ba ba ba ba am ci ba ba xam ci dara ba am ci fu ma toll léegi damaa ne kon lii nekkatu sama domaine lii mooy sama domaine parce que fii laa ëppee ay soppe te nit ki na fi nga ëppee ay soppe foofu ngay dem foofu laa versé wu nag carrément daal ne man damay def lii léegi loolu macha allah da am nit moom dina nekk ci benn mbir am lu koy poussé lu lay poussé mooy motivation bi nga xam ne am nga ko soppe commencé la motiver nga commencé yëg na tey ji foo dem tudd sikar wala nga tudd laa la illallah gis nit ñi nu muy apprécier ak ñu lay bëggee programme yi di bëri di la woo wante sikar bu démb mooy démb ak tey ban gis-gis nga ci am waa damay gis ne damay gis ni am na avancement mhm. am na avancement parce que parce que xale yi jàmbaar lañ mhm. xale yi jàmbaar lañ man bu ma bu ma déggee euh, bu ma déggee eeru mag ñi sax ñu koy boole ak xiin mhm. wala di jël olofal di ko boole ak xiin te muy jaar yoon te jaar yoon damay damay damay gis ne avancement mi ngi am. parce que ñoom ñoom ci ñi nekkoon ci démb loolu rek loolu rek lañ leen bëggaloon. yaa ngi dégg na sax damay damay ne damay ne xale yi xale yi ñoo ko gën a teg ci yoon. ñu démb dañ ci xam nga di nga def mbir am ci yemuwaay mais di nga def mbir jël jël dara parce que adduna mooy demee noonu. amoon na jamono yi 33 10. am na ñu ko fi doon am nekkoon ay borom daraja. tey tey ay 14. Mhm. iPhone 14 boo ko boo boo ko amul. <laughs> gars yi duñ la xool. noonu la adduna di doxee. dëgg la te yàlla ay mbiram noonu la koy doxalee. dëgg la sikaru démb. Mhm. dañ daan takk seen digg yi. Mhm. yaa ngi dégg di dar seen i nopp. te léegi euh, allah ngay wax ne ko yokkal ma écho bi. baax na. soo ko orienté sa baat nu la neex. te bu démb da daan dem ci yëg-yëg. moo tax ma soo gisee man la am na avancement ci côté. technologique laay wax mm-hmm. parce que bu njëkkoon Hizbut Tarqiyyah bu ñu daan jàng da gis ñu teg ay jukki mm-hmm. tey daanaka ay machine la ñuy teg mm-hmm. muy programmé wu foofu laay waxee ne avancement bi foofu la ci côté sikar si tamit avancement bi foofu la waaw xam nga tey nit ki président yi dina pas jumtukaay bi wante jëmmi nit ki ci boppam présence bi ci wàllu gëstu bi ci jàng mokkal olofal yi jàng xasaay di dund ko ba nga xam ne moom bu koy def xam tey da toog fii léegi na ndaw ñoom bëgg nañu sikar te baat bu neex képp ñoom jàpp nañu mooy sikkar si ak dégg benn way bu yomb rek nga roy ko way ko ndax nga nekk nga nekk ci daara ji commencé sikkar mhm. léegi boo calculer at yu bari bari la mhm. te kon boobu tout tànk la waaw tout nga def nga fi album def nga fi yu bari yoo xam ne yëpp nañ ci dugg mhm. moo tax ma ne loolu présence yu nit ki man laay laaj mooy taxawaay bi nga xam ne moom nit war a am pour mën a réussir loolu xam nga toujours euh, euh, suñu jàmbaar ji ak comprendre ko dafa ute mhm. da dégg da ngay dégg ci waxam ci waxam yu bari mu naan la iman islam ak ihsan mhm. baat boobu nga xamante ni ñëw na ci ñëw na ci ñëw na ci l'islam mhm. yaa ngi dégg ah, gars yi dañu war a am gëm-gëm ba pare di set ba pare am bëgg-bëgg ci li ñuy def te yooyu noonu bis boo ko su fekkee lii ñuy def ni yooyu bu nekkul ci yow qualité yooyu bu nekkul ci yow yow nekkagoo ko pour sa question boobu ñi nga xamante ni jànguñu ñi nga xamante ni jànguñu bëgg a def wala setoo bëgg a def yaa ngi dégg amoo ngëm-ngëm bëgg a def yaa ngi du mën a sotti dëgg la waaw mooy daal faw nga jàng ba mokkal waaw mën a tari waaw foo tamit nga set ba la ba ku la gis naw la xam ne la ngay def ni jàmmu yàlla la aa loolu nga loolu ngay leeral waaw loolu laa bëgg a leeral fii mhm, mhm. loolu laa bëgg a leeral mhm. ci ci mbokki taalibe yi di wax ne am na ci ñoo xamante ni man boog ñi may déglu parce que Seydina Omar man duma ma mm-hmm. du ma déglu kuy fo. du ma déglu ma dem fu ñuy fowee. Mm-hmm. du ma ànd ak ñu dëgguwul. dëgg la man foofu laa nekk boog sama sama sama objectif bopp. <laughs> macha allah Dieylani yow xam nga yow moom suñu waxtaan day neex ndax euh, mooy na ko waxee da am lu bari loo dund. ci sa si mm-hmm. muy démb ak tey ak tey. kon suñu waxtaan dina am yu bari yoo xam ne ku nekk ñu koy déglu di sikatkat di say morom mhm. wala ñi nga xam ne say raq lañu niñ am ñu ci mën a jàng mhm. waaw kon nag dañuy bëgg rek nga bëggalaat ñu tuuti ñu mën a yënguwaat bu ñu paree ñu duggaat ci waxtaan bi waa di wax ne euh, mhm. am ay ay ay ay air yoo xamante ni démb woon dama ciy barkeelu tuuti rek di wax ne air la waaye lii olofal la waa di wax ni euh, ñu barkeelu ci tuuti rek tey jii ma way fi ndaamale ca daaru ñu naan ko cerno cerno jarna juuru maam cerno lii mu liggéey ci biir yoonu war na ku nekk way ko te xam ni mooy farit danaa la wax tuuti ci ay jaar jaaram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 ca poroxaan la suñu maam ja cerno gane addina di gindi xarnu la mamor anta naan seex bamba bis ni ki tey am nga ku teeñu yen ba gan gi am boo musa mu dim aarona sa ñaan ga nangu na doxal seenu yoon ba mu matee dal la ko mamor anta jébbal Serigne Dieng ñu boole koog maam Anta Mbàkke borom daaru ab diir bu gàtt la fa def bàyyam ba jëli ko jébbal ko Serigne Bamba Bamba ko jàngal ba wattu alxuraan ak xam-xam foofa la rawee dex ba ku soobu naan gannaaw ba xaalima jaxate jàngal na ko yemul ci ñi moor barxaama jaxate jàngal na ko moom ba mu yi fànni xam-xam booba la delsiwaat def Seex Bamba muy ab sangam Bamba ko tarbiya te moo ko tarxiya bamba ko tarbiya te moo ko tarbiya moo tax bu ndon fa ndonga ya maam Cerno mooy ku mus na juuyoo ak ndigalam ci ak ndawam ba ni mu màggee ba samp këram ba nuy miraas sëriñ moora seen baay la ñépp xam ni bamba def na Cerno waay daa wax ni man ak Cerno kat jaruta sonn ngir du ma donnu cerno yit du donnu sa wàllu mooy mam cerno te cerno mi maa di lii la wax keroog ca mbokki boppam ya keroog la mam cerno gën a topp bamba fonk ko loolu ba molli mooy laram ba mam cerno xam-xam ba ak fitam ba mu amee woon taxoon na mu doy seex bamba moom la jiitaloon maam Thierno mën naa ne yoon wi yëpp moom la ngir lu fi jag bañ ji ko yéen jëfam la Mbàkke Kajoor moo ko sancaloon Serigne Bamba takkal ko fab nekku ne di seen pa jëm ba Mbàkke Bawal maam Thierno mi la yebal moo ko ko sancal góor la nag bu kenn yebul woon Daaru Salaam maam Thierno Faati la yebal moo ko ko sancal lii ku ko weddi gëstu seex bamba it keroog ba muy wër tuuba ba gis ko maam cerno faati la woolu booba kër fa am maam cerno faati moo ko taxaw sancal ko bamba jëfa taxoon mu toonaw gaboo la maam cerno faati yónnee woon kaamilub seex mustapha taawam ngir moo ko ba mu wattu alxuraan mook ay rakam moo tax ñu rëcc nasaraan bamba ngegeej di ram mu gaay baari maam ceerno toog di gindi gaay baari mbër mu fi seex gannaaw tukkib seex bamba ceerno la seexal moo yoram baatin ba moog li mu seexal lim ba mat na téeméer mu ne ci ñoom mu jël sal ay leer lii la maam Cerno nekke woon ci réew babam ba del si ñuul amul ci soow babam ba ñibbisee ba ñëw Dakaaru keroog la naan ñu wool ka daaru sëriñ Isa jenn lu yum ni moo fa dem ne ko nga wuy ji Cerno tey ji am nga keroog ma maam Cerno teseeg moom fandar ba gis nagam ja ñëpp a waaru ngir daa nu yoog Seex Bamba rek dëgg mu di jooy jooy na fa jooy yu rëy keroog xol yëpp tooy keroog ba Seex Bamba egsee daaru mar naan lu ne fa am ci xeeti ñam ak xeeti naan bagaasi sëriñ bi bàyyi woon ba del siwaat dara desul lépp la maam Cerno andi waat andi na gaal ya boole ko sijaada yaat xalima yaat yére ya jox teere ya ataaya ji mu fi bàyyi woon del si waat dara desul lépp la maam Cerno andi waat andil ko ñoom Seex Mustafa Seex Fallu Cheikh Bamba xool ko naan ko ci yaa doylu am nga ngërëm ci yàlla ak rasoolu mayit ma gërëm la sa mbir du soolu keroo la naan ko yaa di sab loxo nday joor te yaa ma doy ci lépp cerno yaa di góor man ku ma fay ñett am te cerno mm-hmm. ku mu fay nga am ñeent ba raw ci xarnu ngir yàlla day fay sunu yoneen ba day fay man it ma fay maam ceer na fay te ku fay nga fuuy man mii di woy ma wax ni aarun baax na waaye du ceer no seeni mbir waroona Musaa ko denkoon nit ña dugu xalwa ñeen fukki fan la def ñu jaamu naag wa te ceer no nag at yu teg ñaar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 maam Cerno Faati yàlla na ko yàlla dolli ay leer te njaboot gi mu fi bàyyi lépp daal dolleeku na ñépp maa sa ñaanal sëriñ Abbas bur yàlla yokki leeram bàyyi fi Seex Baas amin bi Ahmadul Xadim ci barke Cerno ak sëriñ Masamba baabullahi baabil jannati mhm. borom daarul moxti jàmbaar ji loxo ndey joru sëriñ Tuubaa moo nekkoon la modèle waaw jërëjëf Jeylaani ci loolu mm-hmm. ñu siy daari du ci nuyu jàmbaaram ji tamit sëtam bi nga xam ne muy borom daaru moxti mm-hmm. borom daaru sukóor yi nekk fecc sukóor yi di jàmbaar mm-hmm. di doomu naa Ousmane borom daaru norin yi ma koy ziar moom tamit Balla Aïssa suñu diggante ak moom nag ku ne xam na ko bàkke ñu ko ñaan moom tamit mu yàgg lool te ànd ak wér ci daraje weeru koor gi loolu laay ziare képp koo xam ne rek waa daaru moxti nga bokk taalibe yëpp rawatina nag taalibe borom daaru yi nga xam ne samay dafa bari ñoo xam ne boobu ba léegi saa su ne mhm. damay am yéene tudd leen mhm. boo ci tuddee kenn ku mel ni ndaama mbub maam Thierno ndaama mbub géwalu borom daaru ma lay mhm. ziar di la wax ne jël naa nuyoo bi ak cant gërëm nga joxal ma ko képp ku yaakaar borom daaru moxti rek maa ngi la koy ziar ak Cheikh Bari ma koy ziar HLM Cheikh Bari tamit yaakaar borom daaru loolu bëgg ko ma ciy ziar ñëpp ak ñoom papalay Medina di yoo xam ne bëgg borom daaru lool gëm ko yaakaar ko maa ngi di ziar bu baax a baax di la ñaanal jëlaani macha allah ci taxawaay bi ci lii lañ soxla ci ndaanaan te wane nga ko sànq xasaay di nga ubbee mokkal ko di ko tari ni mu la neexee olofali nga ñëwaat léegi jël ko li waye loo xam ne yu bari sa xalaat sa bind la mhm. yoo xam ne am na yoo xam ko ci sa mbir loolu dafa jafe mhm. ma bëgg comprendre taxawaay bi originalité bi nga xam ne am nga ko constant bi nga am diggante bu 96 nga ne ba léegi mhm. lan mooy affaire bi lan la secret bi waa di wax ne euh, yàgg dafa bawul dara loo yàgg xëcc te bàyyi woo rek bu yàggee mu ñëw di wax ni soo gisee euh, olofal bi ma jàng léegi mm-hmm. day doon relation entre jàngale bu bari da cee nekk mm-hmm. ci entre koo xamante ni la mag ak raq la mm-hmm. taalibe ak sëriñam yaa ngi dégg dénkaane ak ko wóolu ma andi ko jàng ko relation Serigne tubaa ak Thierno ak ki nga dénk nga xamante ni moo tax ma bëgg a chaque fois nit ñi di di di di Serigne Touba dafa doon loo xamante ni nit ñi dañ ko war a dañ ko war a xam maanaam dooguma la waaye xam nga li yaa ngi doon wax léegi fi mu toll nii olofal bi yaa ngi koy jàng taarif la hmm. mélodie bi neex na hmm. wante xam-xam gi mooy yaa ngi expliquer histoire waaw foofu laa doon ñëw loolu dafa neex waaw ci ci histoire hmm. euh, mélodie soo ko déggee di nga xam di nga xam fan la bokk. Mhm. di nga xamante ni. lii lii lii boo demee si kóor yi moom la ñuy màddaa. Mhm. Mhm. ñoom buñ daan buñ daan ñëw. buñ daan ca ñoo ñoo ñëwoon ca démb. buñ daan ñëw di kii bu ñuy bu ñuy ñëw ci koñ yi da ngay dégg loolu la ñuy teg. waaw. da ngay dégg ñu ñu harmonie boobu la ñuy teg di ñëwee. moo tax bi nga bi nga nee kii ma indi la harmonie boobu nga xamante ni. waaye woy ci olofal boo xamante ni tamit olofal la boo xamante ni jubul ci borom daaru ba tey olofalu borom daaru la. waaw moo tax man la mélodie bi hmm. harmonie bi loolu la waaye li nga xamante ni mooy wax ji hmm. yaa ngi dégg histoire la hmm. cosaan la loo xamante ni boo ko déggee di nga xam yow mii toog di déglu di nga bu la mélodie bi dee neex tamit ah, ah, liñ ci liñ ci di nga xam relation bu baax Serigne Touba ah, fan la bokkee Cerno nan la séqee woon ak moom ak nan la ñu demee ma woy ko ci jeexul mhm. lépp sax ndax damay comme émission la moo tax ma génn génn fii dem indiwaat yeexital bi dëgg la waaw noonu la demee si ñinaaw la xam nga tey wax naa ko nee naa kon olofal bi dafa nekk loo xam ne ñu bari tey ci jamono bi ñu toll ci ay jàngkat mhm. lu mel ni dafay bari dañ ko war di baril ndax ndaw ñi di mën a comprendre mhm. comme am na loo xam ne du ñu ma dem gëstu ju olofal yi ci occasion yi la ñuy mën a am nga toog def ko way wala daf ko album wala génn ko fenn ñoom ñu koy déglu mën a xam histoire borom daaru dénkaan bi mooy mission bi wax Serigne Touba ba muy dem ci tukki bi dim ko bàyyi woon ak ndigal yi mu ko doon jox léegi yéen ngeen def ko way di ko way dafa war a dafa war di bari ndax kenn mën na koy déglu moom mélodie bi lay déglu bi moo koy neex wante dina ci day teewlu xam ne lii kat histoire la bu ñuy nettali moo tax olofal baritul ñu koy taalibe yu koy baritul ci gars yi mooy léegi gars yi dañoo dem ba dañoo dugg ci benn stade boo xam ne lépp rek dañ ko yombal waaw waaw waaw mooy dafa yomb daal mooy woyi na yomb rek lu mu gën a yomb gën a baax wala léegi olofal gëstu ko dem jàng olofal mokkal ko moo jafe ma xam ne yow secret boobu laa bëgg ba tey yaa ngi ci lii nga nekk yow da ngay fekk fu ñu fekk xam yaa ngi bind wala yaa ngi gëstu wala mm-hmm. te loolu jafe na morom mm-hmm. la ngay wax ci ñoom lu ko di wax ni euh, euh, pas-pas la rek mm-hmm. pas-pas la rek di wax ni nit moom loo bëgg ah ndem bëri dem entraînement di di bëri ci arène bi wala joueurs yi football yi yaa ngi dégg sax ngoon dañuy dem entraînement tamit waroo waroo di def foo foo gisee micro wala nga dégg ay cant nga dem taxaw di wax ndax Serigne Touba dem moom yaatu na ilham jamir alwara mhm. ilham jamir alwara yaatu na mhm. wara macha allah di wax ni yaatu na yaatu goo xamante ni euh, même boo jëlee xasida yi di ko yàq sax mën nañ ne ko tolérer mhm. tolérance boobu am na ko ndax jiboo naak boromam ndax yéene rek nga ci am yéene bu rafet bëggoon a am pour woy sëriñ bi waaye yéene boobu dafa am lu ko jiitu yaa ngi dégg dafa am lu ko jiitu li ko jiitu nag mooy ñu dem jàngi saa su ne euh, euh, euh, le modèle mm-hmm. l' exemple le père des pères mm-hmm. maam Cerno Birahim Faty borom daaru borom Sikori mm-hmm. di wax ni moom toujours du ñu ne xaala du ne nu laahu dañuy ñëw li nga xamante ni mooy jamono ci lay ci lay wax ak ñun ngi dégg dem leen ngeen jàngi ngeen defar seen avenir ngeen dimbali seen waajur borom daaru noo dem leen ngeen jàng defar seen avenir. dimbali seen waajur. xam nga wax jooju moom li tax dogguma la sax dafa ne man comme arabe la mun naa ko wax arabe teg ko ci olof. beneen coono la moo ko ci beneen langue. moo ko ci la rek. waaw mooy dem leen julli dem leen jàpp dem leen liggéey dem leen def dara pour jëriñ seeni i waajur. c'est simple waaw. mooy un plus un la rek. waaw amul c'est-à-dire nang ma nang. Ah. te yooyu nag bu la koy wax da ngay foog ne da koy wax nii pour kii nii. Mm-hmm. mais am na lu mu ci jublu dalaa laa bëgg dimbali. Mm-hmm. te fi mu ne nii euh, adduna dafa gaaw gis nga weeru korité bi ñu ko commencé ak woor ak léegi da ngay jékki-jékki daal ne ah gannaaw suba da lañ wax ne mooy korité kon mu lay won ne at yi day adduna dafa gaaw yaa ngi dégg ci loo ci deful rek dalay raw di nga dem xëy am ay doom yaa ngi dégg nekk père de famille taxaw doo mën a xam nooy sa doom bu tiitee guddi sax doo doo mën a xam noo koy léemoo pour pour pour mu dal nga war a taxaw julli julli ak say ak sa njaboot sax doo war a xam lan ngay wax pour julli doo mën a ñaan te yooyu yëpp kilifa gune war nga ko de bu dul bu dee boo mokkul alxuraan sax dafa am yoo xam ne ay arme la ci kilifa arme la ci muskalaf yaa ngi dégg nga war ko di doxee xam ko bu baax yaa ngi dégg protection la te loolu nag ci ñoom ñoom du am temps toog du ñu ko jàngal de parce que gis nga mbooloo mi mais wax lay mën a def yow yaay am sa bopp waaw yaay am sa bopp nag dem toog yaa ngi daane kii li ma wax de njariñ la uti ku lay jàngal wala nga def ko wala nga dem ci daara ji jàngi macha allah Jeylaani kon kaddu gi am na solo ci li ngay wax dafa am solo mooy rawatina borom daar dañ koy digal dem leen jàngi rawatina ku bëgg a tudd yàlla bëgg nekk sikkat moom jàng da laa war ak wér moom a jàng foo nga mokkal ko jàng ni mu ni mu ko bindee pour nga mën a nekk sikatkat dëgg dëgg sikatkat allah kon foofu comprendre nañ ko léegi Jeylaani bëgg naa xam mhm. ban année nga njëkk a album bi may njëkk a album est-ce que nekkul ay 2000 2004 2005. 2004 2005 waaw. loolu loolu yàgg dafa yàgg. yàgg na trop trop trop. 2004 2005 boobu comme ni ma nekkee bëggoon ko nag. Mhm. bi dafa dem ba mujj affaire yi nag. léegi nag ma def ko comme ni ko xam nga eh, ci génération bi am na ñoo xam ne sax mel nañ noonu. Mhm. def seen yitte yëpp nag muy muy def def kii. Mhm. def album. def def dara rek boo xam ne gars gaay nañ leen dégg. waaw loolu sama sama beneen nijaay bu ñuy wax Tayiru Mbay bokk na ci njëkk yor studio fii nag ci ci kii. dama ko doon nijaay damaa bëgg a def kii damaa bëgg a def cassette. Hmm. mu ne ma yow looy woy cassette dafa bari parce que moom euh, euh, États-Unis la nekkoon ñoom xamuñu woon benn benn son. Hmm. ay ñaari son mu ne ma daay album dafa kii yow la ak lan ngay woy ma ne ko man am naa lu ma woy am naa am naa am naa lu ma woy boobu woy nekk ci cant yi laay jàpp ak benn yoo xam ne dama koy dégg ko loolu laay woy ma taxaw mu ne mu ne ma dama taxaw fee ci studio bi ma dem fa dama fa demee la laa def dama def من اللوح المحفوظ أبدا ناقلي من اللوح المحفوظ أبدا képp kuy jullit war na xam arafub abajadaat xawazaat xata yakalamana saxafada xarasata الله قلم غفوزي أبدا ناقلي من اللوق لما غفوزي أبدا mama daaloon mu ma ah kat jàmbaar nga xam mën nga lii waaye léegi bu gannaaw si baa nga ñëw damaa ñëw rek mu ne ma balaa sa baata son defal li nga defoon ndeysaan lii da air bi airu Cheikh waaw waaye xam nga xam nga xam nga sëñ bi dafa am fu muy woyee am fu muy woyee day woy ci ci ci ci norme musique ci norme bi nit ñi di war a woyee mais bu fekkee géwal woyam dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a am désordre waaw waaw moo tax woy bi demee nii dëgg la mais ñu ñoom ñoom am na nu koy woy mais foofu la jógee dëgg la sëñ bi laa dégg mu koy woy ndeysaan léegi lii moo nekk sa premier album waaw ñaar titre la woon ah ñaar titre nga dama defoon six six nga defoon léegi si si ba nga ba nga xam ne def enregistré nga album bi yëpp. Hmm. nan ko doon kiwee ci wàllu koppar yeeg jaay beeg yooyu. si si damaa sonaloon sama yaay rek <laughs> maa ngi koy bu baax man ko man man damaa bëgg a génne album damaa bëgg a génne cassette mu ne koy génne cassette cassette ñaata koy liggéey ma mi ngi liggéey marché Grand Dakar. amoon na tuuti xaalis waaye xam nga moom daa féete woon ak man. te hmm. dama dama dama dama sentimental ci côté moo tax du ma bëgg a sori ci moom. ok. di wax ni euh, euh, daa jël xaalis nattam teg ko ne ma demal. ndeysaan ma dem sama nijaay euh, sama maam Tayir Mbay mhm. enregistré ko xam nga mun nga toll nii mun mun nga tol comme sa génération sax nekk maam ci nit. Mhm. day am. Mhm. moom surtout Cheikh Samba Diarra Mbay la Tayiru Mbay boobu. ma Tayiru Mbay mu mag ma lañ ko tuddee. nekkoon États-Unis ñëw fii nekk nekk yor yor yor label. ma dem ci moom. mu ne ma enregistré nga ba pare léegi loo koy dupliquer. ba <laughs> ne maam léegi boobu am naa ñaata. maa ngi yor ay ay trente mille xaw ma. Mhm. daane ko indi mu ne ma laay lii mënul lii de daal di ko jël comme moom ama ama mën naa confection affaire yooyu noonu. Mhm. mu jël ko defal ma dem ma dem sama benn xarit bu ñuy wax Ibrahima Ndiaye Garmi Tijaan la. Mhm. moo ko dupliqué. daa boobu ay ci néegam rek laa toog. ndeysaan boobu boobu mi mi ngi jàng. élève la ndeysaan ndeysaan. wante di defoon na it nag nakali bii nakali bii. waaw dafa def si woon na woon na nag. waaw foofu na ko doon dégg. macha allah am na ñu bëri ñoo xam ne sax. dan nañ ko dégg te xam bisaan jëmm ji xàmmee wuñ ko ndax boobu jamonoy clip yi bariwul woon clip vidéo yi yéen faral wala woon ci ay yu bari jànkati ah. waaw léegi nag bu ñu bari na la def après ci wàllu succès bi ak ñu ko sénégalais yi recevoir yi ba ko mhm. après nag ban lan nga yëgaat sa bopp yow nga def album mu ñu xam nga xam nga Seydina Omar jamono moom mhm. su fekkoon jamono ji la mhm. comme ñu jël lu ñu jël ne mooy succès su fekkoon jamono boobu jamono ji la parce que jamono boobu xatal na pour nga sikar dëgg la jamono boobu xatoon na pour nga sikar mhm. ay lamp jaal ñoo fi nekkoon mhm. di sikar mhm. rijaal ay maxature ay maam Baye Fall maam Xaadim parcelle laa wax de ñun dañ daan xewle sax parcelle dañ daan xewle sax de boobu mu ba jëy suñ amagul mu baarekul ibtidaahi moo amoon mooy gars yi buñ daara ja li may wax ni jëwriñ Souleymane dina ci xam di wax ni euh, ak yenn ñoom si yaaram yi nekk unité mhm. unité onze mhm. jamono jooju ñoom ñoo nekkoon di yëngal yëngal bi mhm. waaw ñoom mbër yaasin gaa yooyu noonu mbokki taalibe yi mag ñi ñoo ñoo fi nekkoon pour nga sikar daawul daawul yomb waaye nag ñun bàyyi woon nañu xel ñoom dañ ñoo bàyyi woon xel parce que man dama ñëw ci ñoom rek ñu soppoon ma waaw surtout lamp jaal ba pare dañoo après ñu demaat géejawaay bokkaat barab bu ñu doon liggéeyee te barab boobu noonu daanaka école la woon muy village artisanal bu géejawaay yaa ngi dégg fa la Pape génne génnee Alim Badara Ndiaye fa la génnee Cheikh Diop Mbaye jaar na fa Lamp Dial jaar na fa Seydou Kara jaar na fa Mouhamed seen jaar na fa Dieng seen jaar na fa ak ay bàkkkat yu bëri oh, waaw de passage may may ziyaare waale euh, daayira yi nga xamante ni loolu bi mu amee ba def benn affaire gars yi daal ku def lii kii moo ko def xam nga bàyyi kii de woo leen ma ko ci sama cant gi noonu ngay wër cant gi di wër cant yi boobu comme gars yi nii. wan boobu amaana amoo amoo benn organisation boo xam ne kon staff bu taxaw ak ménagère ba nga xam ne di nga mën a def benn produit sénégalais bëgg ko nga mën ci am dara yow par rapport ak ci wàllu koppar wala tamit ci wàllu taxawaay est-ce que loolu amul woon daal. waaw gis nga Seydina Omar xam nga xam nga xam nga expérience bi léegi sax lay gën a. léegi la léegi am la gën a la gën am. Mhm. parce que gaa yi euh, benn benn benn instant foog nga couper. Mhm. foog nga copier ci saayirmaan yi. Mhm. ci ci ci ñiy yëngu ci ci musique ak yooyu. pour mën a taxawal say mbir. ñu ko fi def yëpp da ngay gis ne réussite lañ ciy am mhm. parce que léeg dafa xaw a am désordre mhm. yaa ngi dégg parce que ñun cassette yi daan ñëw ñu ne ah cassette bi de taara cassette moo génn mhm. yaa ngi dégg jox taara dama lay jox demal daara bi ki demal daara bi ci mbokk ñu jaay indi dem defaraat desa dëgg la macha allah léegi jëlaani dafa mel ni waxtu bi moom ngi ñuy dab léegi loolu ndeysaan jàmbaar nga 96 nga commencé kat ci daara ji 2004 2005 nga dem jëkk def sa album. Mhm. ba tey ji nga am constat bi taxaw te ba tey nit ñi bëgg nañ la macha allah te an nga li ngay def. Mhm. tey ji lan la ñuy xaar ci Dieulane ak say projets yi nga xam ne moo nekk sa kanam. waaw yàlla def na ni euh, xam nga tamit boo boo su fekkee ne da nga nekk nit koo xamante ni euh, nit. Mhm. être humain. nit jom dafa bokk ci yow. su fekkee da ngay da ngay màgg. di gën a gis sa situation. kër nga am yaay am papa. am ay rakk yoo xamante ni da ngay dem ba am sa doole. yaa ngi dégg après du des lu nga dimbali leen. soo suivre benn affaire mën nga leen gàllankoor. yaa ngi dégg est nga leen gàllankoor. parce que boo demoon uti. yaa ngi dégg mën nga am dimbali leen. yaa dégg loolu nag mun na am tuuti tuuti ci sama carrière a mu waaw mu xaw ko mu xaw ko mooy say business say liggéeyu bopp yeneen yoo xam ne di bokk nekk say bagage pour mën a xam a mm-hmm. dimbali say yaay ak say say sœur ak yooyu mm-hmm. parce que man dama nekk nit koo xamante ne avant tout mm-hmm. sama famille dëgg la balaa daraa xew nag dëgg la balaa daraa xew sama famille ba pare macha allah macha man moom bu ma amoon man man jëylaani su ma amoon addiya bu ma waroon dem joxi sëriñ bi sax sama sama yaay bu ko bëgg dama ko koy jox dëgg la waaw loolu la sëñ bi te sëriñ bi noonu la koy diglee. Mhm. loolu la man foofu laa nekk. Mhm. waaw di wax ni loolu day xaw a baste bu fekkoon dama ko topp rek. Mhm. xam nga comme ni gars yi di def nii bañ a faale seen dem fii toog fii dem fii xam nga day am ñuy def loolu. dëgg la waaye man bu ma basé woo parcelle ba tey jóguma parcelle. dëgg la ñoo ma jàppale. dëgg ñoo ma dooleel ñoo ma puus. te ba tey xeewuma ci ñoom. dëgg la événement bu mag bu fa am. man la ñuy woo te man maay jàngkat bi nga xamante ni maa fa gën a célèbre ci autorité yi autorités yi lu ñu fay dugal da bu ñu benn ñaar Dieylane la ñuy wax woo leen mu ñëw toog. ñu ne ko defal damay def chaque année concert. Mhm. concert bu Baye Fall. Mhm. bi ma koy def du ma amal revenu de. Mhm. mais dama koy def pour bëggale ko yi nga xamante ni. waaw dama koy def mais damay dem ci ñoom wax leen ko ñu jàpp ci taxaw ci ni ñu ci war a taxawee. kañ kañ nga koy def sax. ah waaw bon jàppagu ma ko nag nii. jàppagu ma ko mais xam naa bu ñu jugee ci kii bi. dinaa ko jàpp te yow incha allah dinañ ci ànd ndax gis nañ sa taxawaay. di wax ne Seydina Omar euh, Monisé. mécanicien kenn du ko ne demal nga defar lal. menuisier ñuy wax demal defar lal. kon yow boo ñëwee di yëngu ci diine. Mhm. ñu woole pour nga woo wa ëtt këru diine yi. Mhm. damay sawar a ñëw parce que mhm. da ngay xam li may wax. dëgg li may laaj damay xam li lay wax. dëgg la mais su ma keneen invité woon fi mu ne nii. mën na maa laaj loo xamante ni mu mën na ma jumloo. dëgg la. moo tax dama lay ñaanal bu baax suñu borom defal la jàmm te di wax ni ñi ñi ñi ñiy teewlu émission bi dañ lay bàyyi xel dëgg la ndax yaa ngi def lu am solo dëgg la ndax woo bi man du du bari ñoo xamante ni dañ may woo naan ma kaay parce que du ma dem dëgg la yow gis nga ma dëgg jeune entrepreneur la dëgg la yaa mm-hmm. taxawal naa ba taxawal fondé sama sama kii mm-hmm. sama sama logo mm-hmm. di di wecc café Touba def café Touba Chicory mhm. indiloon naa la ci sax benn kii inshallah xam naa ni balaa ñoo tàggatoo waaw indiloon naa la ci sax benn benn benn kii comme bëgg laa ko bëgg laa ko jox barkeelu inshallah di wax ni mhm. man foofu laa ne mhm. Seydina di wax ni loolu mu xëy na moo xaw a kii sama sama sama sama carrière mais si doon bu doon bu doon bu doon bu doon dama nekk ci du stable ci famille boo xam dafa stable rek kon damay dem <laughs> jërëjëf Jëlaani jërëjëf xam naa ni maa ngi am mbégte bu baax bu ñu sañoon jotaay bi gën a yaatu wan sama gars yi ndeysaan dañuy jàmbaar ndeysaan loolu mais ñi ne nga xam ñoo techniciens yi ñoom Aba ñoom Saliou mhm. dañuy fanaanee tournée nekk ba fajar bu ñu xëy ñëwaat ngir jàpp suñu liggéey ngir mën a jëmmal mbir mi mhm. moo ba xam naa ni waxtu gi moo ñu xoj rek mhm. wante bu ñu sañoon suñu jotaay yow du jeex ndax la nekk ci yow dafa bari ci talent ci xam-xam ci la ngay def constant xam ko war ko mën a def xanaa ñu lay wax rek kàddu gi mujj ñu tàggu ñu lay seetaan bu ñu paree nga béggal ñu tuuti ci ay daaj ñu mën a yëkkati jotaay bi waaw di wax ni euh, bu baax di ci sangu-sang yi di wax ni euh, macha allah di wax ni naa yow dama lay santaat bu baax rek. Mhm. di la ñaanal suñu borom euh, dëgëral sa taxawaay. amiin di wax ni waa barab bi sa mhm. émission bi mhm. ni amul droit ñu koy arrêté. dëgg la <laughs> dëgg la dégg na loolu. waaw <laughs> du yoon ñu koy arrêté. dëgg la parce que boo nee xam sa soppe. gars yi sopp ñuy de. Serigne Touba lañ sop dëgg la Serigne Touba yonent bi la sopp. dëgg la yaa ngi dégg yonent alalu yàlla la. dëgg la kon émission bi émission wu yàlla la. dëgg la la. émission wu yàlla la. di di ñaanal bu baax Serigne Mountakha. di ko ñaanal Serigne Bassirou Anta di ko ñaanal bu baax euh, Serigne Amdi Khady Fall. doomi Cheikh Serif Assane Fall. di ziare bu baax. Serigne Moustapha Fall. li tax ma wax loolu. yaa ngi dégg 30 jours. 30 jours ku woor ñu jox la nga lekk nga naan. te du doon ay nag lay doon ak ginaar mhm. sëriñ Amdi Xadi Fall yàlla na fi yàgg te wér te kenn du ci mos dara te ñoom du ñi koy togg duñ ci mos dara ba yóbbul ko sëriñ sëriñ Muntaxa mhm. ñu ngi leen di ndokkee di leen di leen ñaanal di leen mhm. ziar di suñu borom defal leen jàmm daayira sopp sëriñ Fallu maa ngi leen di ziar baax jëwriñ de Kala Seck di ñaanal soxna Ndayloo way juru sëñ Abdourahmane suñu borom yàggal ko fi noonu laay ñaanalee bu baax euh, suma waa kër papa di ziar sama mag Ili Mbay di wax ni euh, ay xaadir lañ ñoom suma papa xaadir la maa ngi ziar bu baax waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Diop. di di ziar Eli ak Mbuus Ñang maa ngi maa ngi ziar ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay. parcelle nag 1 ba 26 bàyyiwuma kenn. maa ngi maa ngi bëggee ñëpp di bëggee bu baax nag ñi nga xam ñoo may jàppale ci liggéey bi may liggéey mm-hmm. ah, ah, waa dépôt gaz u euh, unité 5 5 waaw mm-hmm. euh, daanaka su may dem programme ci xale yi rek laay jël mm-hmm. dana leen kaa taxaw <laughs> xale yi taxaw zéro ko ci mel ni Serigne Saliou Omar ak ñoom ñëpp rek maa ngi leen di maa ngi di bëggee di leen di leen jaajëfal di wax ni maa ngi gërëmaat bu baax sama yaay di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi di ñaanal bu baax maam Thierno borom daaru suñu borom yagal ko fi sama yaayu bopp sama xarit soxna <laughs> soxna sëñ bi la maa ngi koy maa ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi amiin Cheikh Ibrahima Fall rek la bëgg amiin maa ngi ko fi yàlla na fekkee lépp di ñaanal suñu jàmbaar ji borom daaru suñu borom defal ko jàmm di bëgg nag cellule unité 5 bépp di bëgg waat ñëpp rek inshallah di bëgg waat ñëpp rek jërëjëf Jeylaani jërëjëfati di wax ne nu ma ko waxee buñ sañoon suñu jotaay day continuer lu yaatu yaatu yaatu wante du yem ci bii inshallah ba koor gi jàllee inshallah ba ñu tàmbaliwaat mbir yi dañ amale beneen jotaay bu gën a yaatu ñu mën a gën a waxtaan ndax tamit sama gars yi dama leen yërëm abaa may jégalu bu baax di lay jégalu bu baax a baax baax xam naa ni temps bi xot nañu wante maa ngi la koy jégalu di wax na nag ñuul tamit olof Njaay dafa ne bu feccu liir neexee nday jaatee ci mbagg yi ñun dañuy nekk ci kanamu télé bi am ñoo xam dañuy bëgg lool dañu sopp dañu jàppale di jël seen i alal jël seen i lépp duñu ko defal ngir la ñuy def moo leen neex ak tamit suñu jëmm yi képp kon moo tax mënul ñàkk tamit pensa yi faw nuy am ay cant ak ngërëm yoo xam ne du ñàkk moo tax rek compréhension rek mënul ñàkk may wax koo xam ne nag maa ngi ziaraat bu baax a baax a baax ma caam ki nga xam ne wax dëgg yàlla day koo xam ne jàmbaar la lool ma ci am di sama xarit di ma taxaw di ma jàppale bu baax a baax ci taxawaay bépp lu ma soxla rek bu dégg ba ca moo ngi ci may ziar koo xam tamit xarit la sama raqale di sama def mooy tey moo jaar ci wàllu xasaay bu rafet bii moom di taali borom daaru nóori tamit moo ma jox yële bi ma sol dama demal def ci émission boogaa ma lay ziar moo frère bu baax di la ñaanal yàlla na liggéey bi gën a barkeel gën a am taw tawfeex may waxaat tamit cuun parfum koo xam dafa nekk fële ci wesu faar naa la fa yóbbu jéelaani Mm-hmm. ut yu may laal fu ma taxaw ñu ne ma parfum bi ngay xeeñ neex na trop trop cuun moo ma koy jox mun naa ne cuun la tey ji moom wax dëgg yàlla ak caam ñuy ñoo xam ne parfum yu neex la ñuy jaay parfum de classe lépp luy haute gamme rek authentique yu jógee Paris France lay jógee direct ñëw moom lay am foo taxaw dañ la laaj sa parfum foo ko jëlee kon mënuma ñàkk cuum cuum di la wax saa su ne ak caam maa lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi numéro nekk 76 226 39 86 220 226 39 86 cuun parfum yoo xam ne lépp luy gaam rek haute gamme boo demee fa di nga ko fekk may waxaat maa ngi gërëmaat ñëpp di gërëm Mathiam nag Mathiam di ne mosoo ko gis ma ay peeru dàll ba ko sol gi jeex ma fas yéene ko sol maa ngi gërëm ñëpp jëpp koo xam ne jàpp na ci di ko tàmbale ci aba ci moo ma nekk ci youtube bi lom ci production bi Serigne Saalu ci son bi ñoom bàyyi Modou ñoom Serigne Saal képp koo xam ne rek yaa ngi fii ñoom róon ñëpp rek maa ngi leen gërëm di wax ne koor gi metti woon na trop te dañuy bàyyi seen lépp duñu jàppale ngir suñu liggéey mën a jëm kanam may ziar sama soppe yoo xam samay doom lañ ñii samay raq lañu mooy ku mel ni ñoom ma Mama Ndiaye ñoom Ndaya foofu ci Parcelles Assainies ak ñoom jànke ñooñu samay doom lañ samay xarit di ma bàyyi xel chaque jour dañ may di ma béggee ngir li may def

set na te neex na. waaw macha allah am na lépp incha allah ñu ko ñëpp fàggu incha allah. waaw di profité nag euh, sama sama sama staff. Mhm. ki nga xamante ne sama bis da ciy sonn. ma mhm. Mathiam Wade. Mhm. tailleur la Pikine maa ngi koy maa ngi koy ziar. Serigne Abdoulahat Kanji. borom beleel broderie. nga xamante ni euh, lu ma sol. moom la samay événement <laughs> da koy ñëw ba mu rafet. jërëjëf. waaw macha allah di ko di ko bëggee bu baax sëriñ Abdoulaye Kandji Seydina Omar Baye Fall bi jërëjëf aussi di wax ni noonu la demee jërëjëf Aba kon ñu yëkkati jotaay bi di wax ne Café Touba Chikouri bee ngi ni Jëlaani sikatkat la dinabi ba pare créé entreprise am boo xam ne tuddee ko Café Touba Chikouri di ci jàpp pour mën ci am ñeneen ci mën a liggéey pour mën ci daan seen doole mhm. kon ñu la ci jaaju la encouragé di wax ne mbokk yi ñu leen di santaat bu baax a baax di wax yàlla na koor nangu yàlla ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ñu suivre bi du ñu bàyyi xel rek ñu ngi lay nuyu te di la jaajëfal di la wax ni nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba koor gi jeex incha allah ñu ànd ko yéen ci doole suñu borom ci kàttanu yàlla mi nga xam ne moo ñu kàttanal ba ñu mën ko def tey di ko fekkeewaat saa su ne di ko ànd ak yéen may gërëmaan nag suñu directeur Ndiaga di ko bàyyi xel bu baax ci taxawaayam ci yaatal gi ci dooleel gi ci may ñu opportunité pour ñu mën a feeñal suñu bopp kon Ndour maa ngi wax ne Ndiaga ca kaw ca kanam te message bi chaque jour ma wax la ko mooy gars yi bëgg nañ mu continuer bu neexee suñu borom te xam naa di nga ko def kon mbokk yi maa ngi jox dig daje incha allah ñu yëkkati jotaay bi bay jëlaan nga daajoon bi tuuti rek ci wàllu daal ñu may ko aba ak gars yi si bi ñu mën a ma jotaay bi bismillah sabatani allahu ya annaanu bi jaahi ya bari ya manaanu madatali say an أصحبت كل ما به الإنسان يدي لخير إنك ديان نفيت الدر وأرد يا رحمن عني الذي سمته عثمان كي نورين كي نورين نورين باي شيخ محمد الكرام بكلاجين سيدنا sayduna sayduna Ousmane Mbacke mii may bëgg a woy sayduna Ousmane Mbacke mii may bëgg a woy cay noo rey ni cay man daal bëgg naa lu njëg jàgg yaay njaag kenn du man Cerno Ibra Faati ndaamala ca daaru bàyyi Seex Awa Balla moo di awa balaak awa balla ku ma njuur yaakaar yi jaam daaru moom la ñu la duppee yaay jàmbaar daaru yaay gaynde le mara le plus élégant élégant le sauveur Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni ni ku sopp bàyyi borom daaru Noreyni defal ni def naa ko addiya Seydina Ousmane Mbacke borom daaru